gis na ni nga may taxaw tay sumay jang ba léegi yalla ko yow tax ndax ya gérer lepp su ma solee bu baax yow la xam lay ñaan moy am damay jëm rek mais yow mënu ma la fay mais ma téral la gis nga Ibrahima yalla def na nit ki boko ko tenee ko rek te yalla tax te man limay def ni defaluma ko jambour ki ma bëgg la ko defaral du jambour la ko defar te bu doon yow la xamna naa non nga may taxawé kon limay def ni defaruma ko sama bop la ko defaral tima nit xamna lu ko war ba tay te defa ko kontaan Lima trop def ni sama bop la koy defar chérie waaw yaa ngi toog ça va ça va lii daal nga def. gis <laughs> ba suur ndekk li neex na trop sax. Hmm. <laughs> waaye nag gis naa ni ma téyelee suma càmmiñ bu baax waaye jàppal ni ay gor nga ko sikkal dinaa def le tout ba Ibrahima takk la. incha yàlla baax <laughs> maa ngi ñëw dugg dem marché préparé nag toggal la ceeb bu neex. waaw nag Fatou Kiné ku baax la dafa baax moom. daf maa bëgg nag. yow yaa ñëwati sama kër gi yow yaa ñàkk jom kañ nga bëgg ba sama kër gi eh waaye Ndeye Samb da ngaa couple nii yow. di la raxasloo ay ndab nga ñëw toog looy xaar ku raxas ji ndab yi. Fatou Kiné nee na moom moo koy raxas. Fatou ne laa ko sant wala yow laa ko sant kon damaa bëgg nga jug raxas ko léegi nu mu gën a gaawe dangay ñàkk jom yépp chéri bàyyi mu dem raxasal la ko. non non naa ko raxas. yow tamit bàyyi mu dem raxas ko rek. bàyyi ko. soo demee. dalay toroxal ci ma lii sama yaay rek moom ma ko def te àdduna fa dund lu métti métti pour mun a am neex neex Papis yow xam nga sa note dara baaxul. léegi après. léegi kaay ma teelu leçon bi nga ma xool ba xam parcourir nga ko. yow waaye wunoo nga jàng sa jàng nga bàyyi ma jàng sama jàng yow lan la. lan la. Eh, la. voilà yaay xaaral yow laa doon xaar nga yeewu léegi nee na yére bii ma sol moom moo ko moom. yow ya bon yow yere ngay xëccok sa rak ji ni ki nga xamne xamul dara sa xol bu bon bi. ya dama non ko wax juste que maa ko moom yow dimbalé mo ne dama ko don wax ne juste que man mako mom fo fekk ndaw xolam day bon li ngay soxor. xëy may ko li jeex yow dimbalé mo mu naan may naa ko yere bi bon bay bëgg dé buma joy de man dafa fa bu buma joy macha allah. merci waa kay dama la soxla woon sax yow. Hmm. barke de ba fee ñëw fekk Ibrahima di raxas bool te loolu neexuma de. raxas. raxas kay. Ibrahima. waaw. soo yaay raxas. waaw dafay raxas waaw. ana Fatou Kiné. Fatou dafa génn. bàyyi ma ñu raxasal la. non non garaawul garaaw pare na. dëpp naa ndam yi tax ci biir. loolu de ma fekkoon du am ndax man ma fi nekkee yónni sax duñ ko ko def asuma laag raxas. rafetul de ndax man ni ma ko fekkee bu ko fekkaatee noonu seen de yàqu de waaw. yow sa taxawaay nga ne ma lan la. gis nga yow yaay ni nga nekk ak Ibrahima kër gi du dëgg du yoon. war naa fen nekk nga koy këppiloo mbalit ko raxas loo loolu nag day jeex tàkk ah nokk ndax Ibrahima ak Papis Ibrahima sa doomu xarit looloo tax ah yow nag day na njëkk tey na mujj tey nga taxaw tiim ma di wax ak man di yuuxu man duma sa moroom yaa ko wax doom jima ma jur ak jima ma jur yamuñu li ngay saytaane te naa fekk te fi miste en tout cas li ma la wax bàyyi ci xel. waa génnal léegi kii lu ko war a wax. Ibrahima da ngay jooy déedéet du li nga dégg de du loolu. Fatou Kiné Fatou Kiné dégg naa lépp. man kenn juruma xool ko gis nga li nga nekkee Ibrahima yëpp si kër gis naa waaye jàppal na tey lay dakk yaa ngi mën na bokk ak moom dara waaye juruñu ko nga ne waaye juruñu ko dafa nga déggee loolu waaye meer wax na ma lépp nee na ki yaayam daayif na bu yàgg yow la ngay xeeñ ni lan xeeñ lu ma xeeñ lu dul parfum ki ne li ngay mooy xeeñ parfum bu seer nga naan maa ngi génn bàyyi ma waay. Eh, xam nga looy nirool tamaate bu xonk bu ndaw bi ndaw bi moom ngay nirool tamaate bu xonk. wérul aw ma lenn am sama daaj nga ñëw fii di ma boog. yaa yaa moom. waaw lan la woon maa la woo damaa gis ñetti fan a ngi nii sa loxo duggul ci ndab li mburu ndékki mi sax buñ la ko joxee fi nga koy wàcc soo ko manee rek nag bu ko yàq soo ko manee nanga gedd añ reer ndékki lal bi sax bu ci tëddati seytaane naan yaay du mu mën a nekk ndax li ma dégg moo metti dimbale ma ku déglu dégg yaa déglu looy déglu yaay bi ma juddoo ba nii ma amee vingt ans su xam ne juróoma sa xarit moom mu juróom yaay amul loolu ma def ci kër gi lu métti lu ne yang ngi tek koy teg yaay mën nag ko damay bisa sa kamu sama rakk ka may yónni yaay loolu doyatul yaay rek may togg lo, di ma raxasuloo di ma Ya <laughs> yaay yow loolu kan la war yow ya, la war Fatou Kiné salon ba Papis ma nga teg leneen ak leneen tam njàngam yow loolu yow la war danga koy def. yaay yaa gën a xam ne ndox mi deux heures du matin lay ñëw ci kër gi damay toqaat ko ba mu ñëw ma root ko du tee fajar nga yeema yaay samay rakk ñoo nekk ci kër gi waaye maay jëndi dékk dafa leen ñu dékk ba soog a jàng yaay loolu yëpp méttiwul waaye yaay ñàkk jur gi ma ñàkk jur Ya mun nga ko tepp yow ya, rek. ya xam. Eh, ya nga sama aduna sama dund gi sama tuma dara ya man suma iya, ma tëddoon ci bàmmeel ñu yeema dama juróomu du ma gam lu sama yon Ya ngi ñëw rek la ay eh, sama yaay. léegi da nga jug raxas ji douze bi. raxas pare. kon nga jug biti. abal ma na gaaw. eh dama ne nga dem. waaye meer meer foo ne waaye mais jox ma foofu dix mille waaye. dix mille pour lan. mais jox ma foofu dix mille dama ko soxla damay dem. pour lan. mais jox ma foofu dix mille waaye. aw ma dix mille yu ma la jox. sànq suba laa la jox dix franc. di yàq ko tàmmal di yàq ko tàmmal jox ko. maam lu ma yow fa yoon néew ci lu ma ko tàmbalu lu ma ko tàmbalu du yow yaa ngay seytaane te fimiste lu ci sa yoon waaye eh, jox ma dix mille ay eh, dem meer yoruma lu ma la jox te du ma sama yàpp yaram bi di la ko jox di ma jox wala doo ma jox du ma la jox dërëm Mami, soo def Wah! Ibrahima Ibrahima waa <laughs> <laughs> Ya it, yaay. Yaay, did it. Doon dëkk jurum wala. Taxaw nga ma comme doom. Yaay sama yaay. Ibrahima ñaanal naa la. Ibrahima. La yaa ngi noonu dénk la ki ne. Yaay dama bëgg ko def comme sa rak. ko Yaay. yaa ngi Yaay. Yaay.

Fatou Kiné donte maa la mag de waaye kër gi danga fi taxawee comme taxawaayu yaay ndax man yow laa xam ak sa yaay donte bokkuñ ndey ak baay de waaye mel na mel ni ñoo bokk ndey ak baay man ak yow. tey kër gi say moo ma fi indi waaye nag. loo leen bëgg laay def ak loo leen wax loolu laay def jataay bi nag leen rek moom ci métti Papis mi ñu tëj dix ans de prison gis nga Papis dix ans de prison yooyu mu def da koo mérité ndax li mu liggéey rek la fayeeku ay Fat Kiné waroo wax loolu bu dul dara Papis sa rakk la Fat Kiné Papis xale la daa juum rek xam naa nouvelle bi ma leen di wax nag du leen neex ndax li ma sama visa génn na incha allah demain damay voyage Canada laay dem voyage bi may def nag yéen ñaar yéen tax ma koy def ak sama rakk papis ndax bëgg naa liggéey ba def tout ba génne ko fin mu nekk man leen a taral lan ma def ni may